bokki jullit yi yéen bokki Sénégal yi yéen bokk yi nekk bitim réew tey jii dama ñëw fii ci Daaru Salaam TV Daaru Salaam TV di ko wax Assalaamy TV wala assalaamy point com ay bokki taalibe bi daje fi dajaloo di fi liggéey di fi jot li xabaar yi bàyyi ko Daaru ak Touba ak xew-xew yi ngir bokki taalibe bi yëpp mën koy yëgandoo lii nag bokk na ci liggéeyub sëriñ Touba ndax mag ñi ci jamonoy sëriñ bi lu xew dañ daan wari fas di dem dëkk ak dëkk ngir di ko yëgle léegi bu ñu demee ba réew mi amoon ab rajo ñu di ko wax rajo senegal ñu dem ba Sëñ Abdou Lahad di wax ne rajo bi bu fekkee dañ ñu ci bëlewut nañ ko fi bàyyi di dem ba Gàmbi nu di fa wax lu di fa wax lan di fa wax lu lan bëgg a wax ndigal yéen bëgg a jottali ñu di ko jottali loolee bu demee ba léegi eh, bokki taalibe yi kenn ku ne am waxukaay goo xam ne gii lu rajo boobee ñu nu daan xatal mën a jottali ci ndigalul Serigne Touba ndax sëriñ Touba ñaari yëf rek ko andi al amru bil mahyu bil maaruf wa nahyi anil munkar di digale lu baax di tere lu bon di wone ngirum yonante bi ñaar yokk ñaar yooyu dong ko tax a jóg loolu nag bu ñu ba àgg ci am ay waxukaay yoo xam ne mën nañ ko ci jottali war noo sant yàlla bu baax te xam ne mbirum sëñ bi tànki kanam la am waaye amul tànki ginnaaw te ji xasaayit goo bëgg ak xabaar boo bëgg ak loo bëgg mën ko wax jaarale ko ci waxukaay yi mu dem ci bokki taalib yëpp dem ci bokki jullit yëpp bokki jullit yi moom ba leen suñ borom waxee ne simoo bi xablillahi jamian wala tafarraqo yéen njabootuk muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul xëj ak seen na ngeen boole seen bopp ci genn buum te bañ a teqali wax ne innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum boobee lañu xam ne eh, xablullaahi boobu yi dana danañ danañ ko gis teg ci suñu bët wa atasimoo bi xablillaahi danañ ci teg suñ bët lii màndarga la ci buum la koo xam ne gi eh, képp kuy wax mbirum suñu borom tabaaraka wa mën nga ko cee wax waa Amérique di la dégg waa Australie di la dégg ñeneen di la dégg ah, islaam uxuwal islaamiyatam muy bokk islaam gi la fraternité musulmane mën nañ ko jotli lu ñu bëgg a jotli ci waxukaay yi labiré yi bokk na ci weeru koor wi feeñ na weeru koor wi feeñ na sëriñ bi nee na eh, ñu déglu xutbay jumaa yi loolu yëpp liy njariñam la kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a dajaloo ba def Darou Salam TV Darou Salam point com dama bëgg Darou FM topp ji Darou Salam TV topp ci ma defee ngeen am yëpp benn yoon ma di ci jaarale nag di yëgal bokki taalibe yëpp ne jëmmi sëriñ Muntaxa sëriñ Tubaa sëriñ Muntaxa mooy royukaay murit yëpp dinaa mooy royukaay murit yëpp te tey jii mooy sëriñ Touba man de mënuma ñàkk kër poroxaan nekk ca wetam bu dee def màggalu poroxaan ren ji poroxaan laa fa yéene màggale ji taalibe yëpp nag ñu xam ne ku ñëw poroxaan da nga fekk kër maam Cheikh Anta da am ab dal da fekk ak Daaru ay daaru salaam mu ngi fa woon sax waaye dolli nañ ca geneen goo xam ne gi képp ku kuy ñëw ca màggal ga na nga xam ne noo nga fa nga agsi fa boo fa ñëwee loo fa ñaan suñ boroom dana ko def la ca dolli ko maa ngi soññe bu baax a baax a baax université bii di jàngukaayub Sëriñ Tuubaa bii Sëriñ Muntaxaa teg doj wu njëkk wi wërta taxaw de warta yàgg de tey day lépp lu sëriñ Tuubaa Musaa woote maam Cheikh Anta man te it ku ko werante ku ko werante danga koy xool ci atum 2019 mii rek ah, ñu bari yóbboogun nañu àddiyee de waaye ku yóbbu 172 millions bariwu ci te it noonu la ñuy noonu la lépp mel nag maam Cheikh Anta moo ko def échantillon lépp lu rafet ak lu baax lu muy wone ci maam Cheikh la koy wone bu ngeen ci góor góorgóorloo te def ci seen positif da ngeen ca def loo xam ne lii kenn du ko ca def ndax Sëñ Tuubaa du seetaan mukk tool maam Cheikh Anta booy tool boo xam ne nag Sëñ Tuubaa moo koy taxawul boppam du ko bàyyi mu booy kon nun ñi nga xam ne ñi euh, nooy nooy taal nooy taalibe maam Cheikh yi di taalibe yi Serigne Touba taalibe maam Cheikh sax dama ko wax noonu waxin la waaye taalibe yi ñun ñëpp taalibe yi Serigne Touba la maam Cheikh Anta moom mais ci taalibe yëpp la bokk waaye taalibe boo xam ne sëriñ tubaa du bàyyi ab toolam mu booy soo ca bokkee dangay ngay jéem loo mën ak loo mënut bu ko defee Serigne Touba jàppale la nga nga nga def loo mënut loo mënut Serigne Touba rek la mën a jàppale nga def ko. kon nag euh, fi ma ñëw euh, mu tudd assalaami di daaru salaam defe naa ne daaru salaam la sëriñ tubaa njëkk a sanc ci dëkk bu moomal boppam sancal ko boppam na dëkk ba barkeele yàlla ni seen barab bi barkeele na daaru salaam barkeele nga xam ne moo jur tuubaa jur daarul xuddoos jur daarul minan jur daarul alimul xabir lépp juddoo fa na seen barab bi noo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa mu barkeel leen ni Daaru Salaam am googee jërë ngeen jëf te yàlla may leen wu wér dolli seen wér dolli seen xiwal te may leen fanu wu gudd ba liggéey bi àgg fi ngeen ko bëgg a àgg donga yëpp ak donga yëpp